ngeen jëf seen téléspectateur Baol TV yéen a ngi seen premier numéro le temple des arts tey ñu ngi ko commencé fii ci maître Ndiassé grand maître nekk fii ci Diourbel euh, di yëngu ci wàllu taekwondo euh, di bi yéen a ngi koy suivre aussi ci www.times.com di ko suivre aussi ci réseau câbleur yi ci télé bi euh, bu ñu ko waxee lépp lu yëngu ci naa ne dinañ ko seeti tey dafa dinañ ko njëkk tey ci maître Ndiassé war a si xëy moom waxtaan bu yaatoo yaatu sur les techniques nga xamante ne na am na si taekwondo ak aussi aussi sport bi nan lay évoluer au niveau de Diourbel ndax ñu ngi ci jàpp ñu ci war a jàpp ndax doomu Diourbel yi ñu ngi ci am yenn champion ñu ci war am yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci biir dinañ ci xam yu yaatoo yaatu yaatu ñu ngi si entraînement ñu ngi def li ñu war a def kon bokk téléspectateur da ngeen may topp ñu dem si biir séq ak Maître Ndiassé waxtaan boo xamante ni vraiment waxtaan bu yaatoo yaatu lay doon ok léegi euh, metre foofu foofu lu ñu bëgg foofu noonu gis nañ ne da ngaa utiliser foofu ñetti technique ndax mën nga ñoo expliquer téléspectateurs yi technique yi nga utiliser foofu noonu yan technique nga def ko par benn attaque bi mu def ban attaque la première parade bi nga utiliser ban la nga décortiquer ko pour téléspectateurs yi mën a comprendre ñu mel ni man euh, xam ñaar technique nga utiliser foofu. Euh, ni moom dafa Youssou uh-huh. uh-huh. uh-huh. Ndour uh, loo mën di def moom gaaw koo jege jàpp ko Euh, kon mel na ni loolu amul ndax euh, fekkente ni da nga mën ne fu ñu la mën a téye rek am na noo ma def mën a génn ci technique boobu noonu euh, kon yaakaar naa ni dina jaar trop ñu ci am ñu ci benn aperçu bu ndaw tey nga won ci quelques techniques rek yoo xamante ni mën na si jàngat daal. tànk rek la ñu am euh, c'est le moment ñu xam ne loolu nekkul leen ko waxoon sànq ñu ngi fii ci Saalum Met Ndiassé te ñu taxaw ak une champion nag ñu naan ko jaxu euh, boo gisee nañu jël ko li bëgg xam mooy tey euh, li ko motiver tey mu nekk jigéen di def armation tey ba yàlla may ko macha allah ceinture bi nga xamante ni ah la ñëpp di wër muy ceinture noire tey jaxu euh, ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog téléspectateur Baol TV. Mm-hmm. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen seen sant di kontaan si yéen dafa nekk lu nga xam dama ko yàgg a bëgg sport bu nga xamante dama si yëg sam bopp mais attends jaxu yow bala ngay wax waxu euh, yàgg bëgg bi jaxu ndax yow di nga am jëkkër sax bu pare jaxu est ce que gars ah ceinture bi nga takk du ceinture bu ndaw de. non lii sport la rek. sport la rek te booy def sport moom da ngay am maîtrise. ceinture bi ak taekwondo bi sport la rek. waa dañuy defar sunu yaram rek pour xam nga rek mais taxul daal lu nga xamante ne dafay defar suñu jikko sax mais nekkul lu nga xamante ne après day tax ñu capable de tout non non. Euh, maanaam mën na tax d' euh, népp noo nga mën a tempérer ba mën a maîtriser. voilà voilà. jaxu kon ba ñu si lan moo tax jaxu choisir sport parce que ñëpp xam ne sport euh, benn neexu rawatina taekwondo ndax dañ lay weq ak di la def affaire lan moo motiver jaxu tey mu ñeme ko tey bu yegg si mu yegg si. c' est allah dafa nekk art bu nga xam ne dafa complet te boo si nekkee da ngay aar sa bopp macha allah da ngay am maîtrise. daf lay yar daal man bu ma duggee si taekwondo ba tey man dama gis changement nekk na entraînement bu nga xam ne daf dama ko bëgg daal. tey ñu ngi taxaw maître Mademba Diop ah, di champion bu mag tey ñu ñëw fekk ko ci maître Ndiassé mu koy jàppale ci wàllu technique di ko jàpp tunne kon moo lay won ni sport Diourbel vraiment ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax moom la metre la xëy na saalam la yor mais tey dafa déplacé wu samedi bi uniquement pour ñu entraîner fii maître ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateur Baol TV. waaw salaamaaleykum mbokki spectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaare ñi seetaan ñëpp Monde entier Mademba Diop ceinture noire quatrième date. ah euh, tey euh, nga def geste bu rafet parce que saal nga yor comme moom ah mais euh, lan moo waral d'abord tey déplacement bi ñëw entraîné fii nii tey affinité boobu noonu lu ko waral. waaw loolu loolu du lu jaaxal Diourbel waaye c'est parce que man Médoussou moom ma jàngal tey kondo ci saalam laa nekk ba tey mu ubbi saal fii responsable bi Ndiasse Faye la. maître Youssou mooy euh, maître de salle bi kon su ma ñëwee sama kër laa ñëwaat entraîné si waat bon te ñun dañuy demlante dañuy diklante bërki démb la ñu ànd ñoo jógee ñoo demandoo euh, coupe ambassade Corée Dakar ñu nekk ay arbitre aussi bon ñu nekk ay naataango yoo xam te ni wax dëgg lu ñuy defandoo presque lu ci ñoo koy defandoo bon ni may ñëwee saalam loolu la ñëwee sama saal bon su ñëwee comme ni damay ñëw toog waaye ku mu diriger continuer travail ak boy yi c'est parce que li euh, lan moo tax euh, nga am nga nga bëgg taekwondo ba dugg si. wax yàlla man damaa ma laa leen gis ñu koy paramétrer après si laa si dugg. taekwondo métti na wala méttiwul. dëgg fa yàlla moom méttiwul moom. méttiwul moom est que neex na. dëgg fa yàlla neex na tamit ndax bu dul dara tamit da ci am sa wér gu yaram. kon lay wax xale yi nga xam ne dañoo ragal dugub taekwondo. dëgg yàlla mu leen di wax ne amul benn loo xam ne si dana la gàllankoor lu ci nekk. jërëjëf sa Sëwru euh, Sëwru lan moo tax tey ngay dugg taekwondo. ah damaa gis sama damaa damaa gis xale yi dugg neex na wala neexul. neex na na. waaw ah. yaa ngi takk ban zone supérieure. zone supérieure. waaw ah di courage est-ce que bëgg ngaa dem ba yegg noir. oui. ba ngaa dem ba saal. ah mbokk te spectateurs yaakaar naa ne ñu ngi ci catal émission bi euh, le temple des arts martiaux tey ñu seet si woon maître Ndiassé gis ngeen ñi nga xam ne jot nañoo waxtaan ak ñoom muy élèves yi gis ngeen entraînement yi gis ngeen lépp tey ñu war a tëj ak moom seq ak moom waxtaan wu yaatu ndax ñu mën xam maître Ndiassé moom mooy kan en tant que Ndiassé moom mooy que taekwondo aussi que moom mooy kan en tant que pratiquant sport bu ñu naan taekwondo fii ci région de Diourbel temple des arts martiaux loolu moo ko tax a lay bàyyi nga nuyoog say mbokku téléspectateurs salaamaaleykum euh, mbokki téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, nuy bi nag euh, maa ngi koy jiital di koo jiital ki nga xam ne mooy suñu maître de métier Youssou Diop lépp lu ñu fi def tamit ak lépp lu ñu fi wax nii ci kàddoom lañ koy waxee ndax lii nii ñuy def nii tey moo fi waroon a tey bi ma ko waxee yàlla dogal na nee na comme que man maa ngi fi rek amul benn problème que nañ ko doxalee ni mu waree. Mm-hmm. voilà maître euh, maître Ndiassé nuyoo bi jaar na solo léegi tey bëna bu la téléspectateur doon laaj maanaam ngir bëgg xam en tant que Ndiassé Ndiassé moom mooy kan d'abord. waaw man maa ngi tudd Ndiassé Faye nekk salle bu ñuy wax naan Diourbel taekwondo club ki nga xam ne nii que moom moom salle bi di Médius Diop ki nga xam mooy 100 mètres euh, taekwondo bi nag mi ngi fi ñëw en 96 lañ fi ñëw te Médius moo ko fi indi man euh, ceinture noir quatrième dan la bokk ñu ko wax arbitre national ak nekk président commission d' arbitre de Diourbel. voilà kon Ndiassé bu loolu weesoo liñ bëgg a xam tey d' abord Ndiassé euh, bi ngay def nii tey da si yore élève di ko éduquer ndax d' yorin bi yomb na wala yombul. waaw loolu moom dinaa ci sawar a wax euh, ndax euh, taekwondo bi nga xam ni moom la ñuy def maanaam boo ko gisee ci. tàggat la sa yaram ak yar ay xale maanaam nag ci loo gis lu ne yar ay xale moo ci gën a metti maanaam taekwondo bi ngay def sport bi euh, soo amul passion bi doo ko mën a def ba man cee tàggat ay gone ndax gone moom ku ne xam na ne moom dafa naqaree yar ndax gone da ngay gis koo xam dana dégg da nga gis xam ni du dégg da nga gis koo xam ne dana dégg mais ci moment yi nga koy bëgg a déggal foo mooy nekk cim xelam bu fekkee ne ko sam xool dafa gaaw a tàng yow doota doo leen mën a jàngal ci ay xale lu metti la. dégg ñu si bëri xëy na ñu xamul laa ni mën a way wala suñu mbokk yaay ñu naan booy def armation day tax ngay xeex ak yooyu noonu quoi ba tax na ñu bëri xëy na looloo tax ñuy téye seen doom est-ce que loolu am na wala. waaw euh, armation bii ñuy wax. pour xeex taxu koo jóg sport la comme sport yëpp ni ñemeen ni ngay dem di defee ji football wala ngay defee tennis euh, noonu la mele nii ci yeneen sport yi bu ñu koy jàng du pour xeex moo tax ñu koy jàng lan moo tax ñu koy jàng maanaam pour yar discipline bi nga xam moo ci nekk moom lañ ci wut si ak lan li nga xam ni kat dana am arme boo xam ni da ci nekk ci sa biir yaram pour ëllëg su la ay sàmba booy dogalee ci yenn bërëb yoo xam ne nii que amoo yenn jumtukaay yoo xam mën nga koo saafonte ñoom pour loolu moo tax ñun ñu koy jàngale parce que soo ñëwee dafa am lu ñuy wax naan suñu serment muy lan serment du pratiquant mm-hmm. parce que du pratiquant que ñi ko xam ak ñi ko xamu ni parce que dañ naan la je m'engage à respecter et à obéir exclusivement aux ordres des maîtres et des anciens mhm. je m'engage à ne pas contrarier l'esprit du taekwondo mhm. je serai où que ce soit à de la justice et de la paix mhm. j'aurai au cœur et au âme au développement du taekwondo maanaam li nga may bëgg a laaj ni lépp daanaka ci boo duggee ci salle bi serment bi dala koy jàngal li ñu la jax naam pour fola ak kaf ak respecter kilifa li nga koy wax nag danga koy def ci paix ak discipline mm-hmm. mooy li nga xam ne ni que mooy taekwondo bi nga xam ni ci lañ nekk te mm. kuy ñëw di ko dugg soo ñëwee loolu lan njëkk a tegal xam nga leen yéen met ngaas ay mën naa ne yéen ñu garaaw ngeen ndax ma ne bu mën a doon pour attaquer di wala pour xeex mais bu jàngee aar boobu ba tempérer ko na doon xam ne day gaaw a mer am na ci quelques preuves ah tàng xol ne ca koñ ba mais bu commencé jàng armation quelque temps da gis loolu loolu lépp dañ ci xelam nan ngeen di formaté xelu kooku noonu ba mu tempéré. waaw à commencer man mii ci sama bopp laay njëkk a waxee parce man avant que muy dugg taekwondo maanaam ma mais bu ma duggee nag taekwondo maanaam dafa mel ni serop euh, yaram wu tàngoor dañ koo rocc teg fële ñun nag li nga xam ne nii que moom lañ yor fii nii comme secret. Mhm. ba nga xam ne koo xam da nga ñëw fi ak sa sawara sa tàng ak sa naqari deret ñu wàcce ko. Mhm. muy lan soo ñëwee ci saal bi. amul mag amul gone xam nga lan lan xam maanaam ki jiitu ci kanam muy lan ceinture supérieure supérieure bi lim la wax ordre la da nga koy exécuter daf naan la defal lii ma def lii soo ñëwee liñ la parfois dañu ñëw fekk saal bu taq sotti ci ay mbel yu bari ñuy xool yow sa xol fan la toll pour jim koo toj soo ñu lee kaay ba ñu ne bale war a ramasser ko li ñu njëkk def buñ xoolee saal bi mu tilim rek dañ naan bale leen saal bi ngeen bëgg wàcc ñu ne non non bu kenn wàcc tapi bi ñu ngeen def ñu ne tapi nan set soit simi leen seen bu fëgg ko léegi yow bu fekkee da nga rëy waaye sa xol dafa tàng yow doo yàgg ci saal bi. ndax mën nañ xam tey Maître Ndiassé ñaata élèves moo nekk si ginnaawam tey. man yi nekk sama ginnaaw parce que man su ma ko waxee damay juum. Mhm. élèves yi nekk sama ginnaaw parce que man mii di waxee ne élève laa mhm. parce toujours damay wax ci cadre ki nga xam mooy suñ met bi muy Youssou parce que fii ma toog tey jii moom laa fi teegal kon may wax daan naka li nga xam ne nii mook ci nekk ci ginnaaw muy parce que waru maa wax leen lu rek ci muy li fi nekk tey bu ma ko doon lim fi lay fanaan mm-hmm. parce que mën nañ ne plus de cent et quelque laa lay wax yoo xam ne nii ki ñi ngi nekk ci saal bi li nga xam ne nag euh, parfois lañ jaar parfois duñ jaar suñ amee temps ñu entraîné suñ temps loolu nag jéggi na day wax euh, le minimum y' a plus de élèves sa ginnaaw ou cent donc ñu xam ne kon yaa ngi def éducation bu am solo fii ci région de Diourbel kon yaakaar naa ku yor éducation bu toll noonu di ko def ci ay jeunes euh, jaadu na war na am lu mel ni situation war lu mel ni jàppale war na am ndax ndax boobu noonu jaase mu koy yëg. waaw jàppale bi moom man naa ne naam ka ñi ngi koy def sax waaye lu néew la. lu néew la fi nga xam ne nag ñoo yor jeunesse bi di leen dimbale ci lu demee ne ay subvention lépp lu ñu organiser danañ dem ci ñoom dinañ leen ko diis maanaam dana am loo xam danañ ko yëkk ci jox ñu ko dana am foo xam daan fa dem tamit suñ leen laajee yàlla dogal na dana am lu ñuy tontu du fa nekk te ñun gis nañ ne fii ñu nekk ci sport bi ci. commune de Diourbel vraiment soxla nañ ku ñu dimbali ku ñu dimbali lool xeebuñu nag ak képp ku mën di doon ku ñu jox ku ñu jox lépp xeebuñu. Euh, Maître Ndiaye Sène ndax mën nañ xam ba léegi ci wàllu sport bi ndax yaa ngi ciy génn au niveau national voire au niveau international di fa compétir soit nga fa yóbbu say dogal na récemment maa ngi jugee France le 6 euh, euh, février laa jugee France ma yóbboon sama benn boo xam ne bu ñuy wax Koumba Noor Diop yóbbu damay génn au niveau international biñ dem fee yàlla dogal na jël nañ fa médaille boo xam ni troisième place lañ fa jël nekkoon ci compétition boo xam ni mooy coupe de l'ambassadeur de France moom lañ doon jeune compétiteur muy Koumba Noor Diop man fa ci compétition yoo xam ni nekk naa fa comme arbitre ci open euh, bu ñuy wax nii que boo nekkoon Marseille. Ah, tey ngeen demoon représenter couleur Sénégal rawat na aussi couleur Diourbel parce que bu ñu waxee Sénégal dinañ wàcc bu yegg si Diourbel muy loo xam ne vraiment ndamu waa Diourbel ndamu Sénégal la ndax bi ngeen demee ba ñëw jël médaille troisième loolu xam na ne du ndaw tey bi ngeen ñëwee recevoir nañ leen def ak yéen ni ñu war a def ak waaw loolu man naa ci am lu ma ci mën a wax ndax euh, yàlla. moom def na loo xam ne ba ñuy départ vraiment dañ koy santé monsieur le maire Malick parce que bi ñu dem moom mooy ki nga xam ne nii que bi ñu demee sollicité ko lu mu gàtt gàtt jox nañu ñaari billet jox ñu si argent de poche boo xam ne ci lañ dem ba ñëw bi ñu ñëwee nag moom yàlla dogal na kumba daf ma jeetu jiit si woon man na amoon ay formation yu ma def doon France pour yokk sama xam-xam léegi bi mu ñëwee nag centenaire bi bi mu ñëwee foofu nag présenté nañ ko fa ñu sargal ko wax ne doomu njaaram bii kat moo demoon France indi na fa médaille bi devant tout le monde lañ ko indi ñu sargal ko félicité ko baax a baax après nag dem nañ seeti maire euh, fekk ko. biroom nee nañu kat incha allah xat-xat yu fee moom dina xool nu muy def ak ñun. c'est bon léegi dañuy euh, tënk waxtaan bi tuuti rek euh, en manière générale sport Diourbel ci pratiquement ci arts bi te moo ñu ñun euh, noo ko gisee de manière ramassée quoi. waaw d'une manière ramassée damay wax ne ya karaté taekwondo. Mhm. kung viet vo escrime. Mhm. boxe. yaakaar na yooyu yëpp ñu ngi fekk ak judo mais dafa am loo xam ni day daf ñu manqué ba am na ay talent yu fi nekk am na ay champion mais ñu ñu accompagner bañ mën a génn au niveau international wala ñu mën a génn au niveau national lool moo ñu des ba chaque fois suñu waree dem compétition au niveau national wala au niveau international manque des moyens moo tax des fois deux athlètes wala trois athlètes mais vraiment soxla nañ ñoo xam ne dañu gestu ci ñun art martial yi nga def. Ndiassé dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi euh, ñu jox leen dig daje semaine prochaine ci beneen numéro quoi. waaw baax na maa sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur dolli di sant Medioussou Diop. di ko sant di sant Medioussou Diop di ko gërëm ndax moom a tax lépp lu ma am ci taekwondo ak fépp foo man di yaar foo ma toll yàlla ak moom moo tax di euh, remercier euh, maître Mame Demba mii nga xam ne nii que taekwondo mën naa ne ñoom ñooñ ci teete parce que fii ma toll nii bu toon ñoom ba doon ci ak ndax Médis ba mu fa nekkee mu nekk ak ñoom ñooñ doon jiite di ñu tàggat mañ toll fii ñu tag di remercier tamit képp koo xam mooy téléspectateur téléspectateurs yi yi nga xam ñooy suivre émission bi ci région d Diourbel commune de Diourbel ak képp ku nekk pratiquants di leen tàllal loxo di leen nuyu baax di remercier tamit euh, les élèves yi nga xam ne ñoo nekk fii ci saal bi ak saali Diourbel yi nga xam ne nii ñoo fi nekk élèves yi aw ma seen pay parents yi aw seen fay li leen remercier encore yéen ñi nga xam te ñëw ngeen fi tamit di Baol Times mënuñu leen a fay parce que lii day loo xam ne nii que yàggoon na koo soxla mais gisuñu ko dafay doon loo xam day vulgariser li nga xam ne nii mooy taekwondo di art bi nga xam ne moo nekk ci Jurbel bu ko defee nit ñi di ko gis partout dans le monde ci réseaux sociaux yi di ci mën a participer encore une fois ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax. waxee kon euh, choix bi ñu porté si moom ñëpp xam nañ ko parce que jeune la boo xamante mu ngi ci Arma bi di ci def fulla ak fayda bëgg li muy def kon bu ñu amee émission bu toll nii jekk na jaar na xëy na ñu njëkkee ci moom di leen xamal ne temple des Arma nag mu ngi fi dans ci corps yëpp lay yëngu ah. lépp lu jëm ci karaté taekwondo boxe comme ni mu ko limee sànq bépp salle bu nekk si région de Diourbel ah bi Mbacké Bambey ah, xam leen ne ñu ngi euh, a a bi kaagu jërë ngeen jëf. Jurbel